pour wane ne rek euh, étudiants yi boo gisee may ñëw du question sax pour tonton ak ñoom mais dafa am solo aussi ñu leeral pour l'opinion Sénégalais yi kenn ku ne nga toog ñu gindi Sénégalais yi ñu xam euh, lan moo waral euh, li xew mhm. en réalité nekkul décision boo xamante ne par rapport ci li ñu communiqué dafa am lu xew à partir du premier juin mhm. ak loolu sax li jiitoon loolu yeneen événement amoon na fa mu am ay yàqu-yàqu yu mag yu am université mhm. créer ay ay yoo xamante ne tey ay ñu gis luñ mësul gis université dans l'histoire ay bibliothèques yu ñu toj ay bisu euh, liggéeykat yu ñu yàq gis ay amphi ñu taal ay ñu taal yooyu yëpp am ñu ne lii kat foog ñu def njàngat ba lu tax li fi amoon du fi amaat di wax ne aussi bu loolu yëpp amee ba li waral ñu ne tey tijjiwuñu du la COUD moo ne tijjiwul mhm. le dafa am fu ñu bokk le COUD mooy centre des universités Dakar social bi dafa am lu ko tënk lu ñu naan le conseil d'administration le conseil d'administration d'ailleurs le directeur du COUD n'est pas le président mm -hmm. c'est le directeur qui est le président du conseil d'administration si le conseil d'administration dafa am ay corps de métier yu bëri yi ci bokk ak ay institutions yu bëri li mel ni la présidence dañuy am représentant mm la primature dañuy am représentant le ministère de tutelle de l'enseignement supérieur de la dañuy am représentant le corps de contrôle dañuy am représentant nga jëlaat encore au niveau des COUD lu ñu naan les travailleurs les syndicats ñoom tamit dañu am ay représentants. Mhm. étudiants yi nekk fa ñun ñu nekk fa ak directeur ñun le cabinet du directeur. si je vous comprends bien euh, dañoo wax que ne COUD moo jël décision bi. mais en réalité. parce que ñooñu dafa am kenn ku ne li ngay xaaj li li ngay xayma ba xam ndax mën nañu tijji wala mën nañu tijji. léegi bu loolu amee tey. ñëpp xam nañu ne lépp lu ñuy yàq foog ñu defaraat ko. Mhm. tey je donne un exemple étudiants yi nga xamante ne ñooy taal neuf bus yu personnels yi amoon. tey bis amatul. ku mënoo tëb rek jënd ay bis te dafa appel d'offre xam nga wax naa la tous les corps de contrôle sont représentés dans conseil d'administration. bien gis nga li xewoon ay temps yeneen directeurs yu fi xewoon ñun le directeur Maguette Sène que je salue de passage administrateur civil am na loo xam respecte les règles du ci dugg. am na les lourdeurs administratives ba luy waral tey bis yooyu war nañ leen jëndaat tey ku agent mais li muy wax ni mois de juin la woon ba tey. waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw du foofu kese du foofu kese maa gis agent COUD bu xëy di liggéey. Mhm. xëy liggéey 5 heures du matin. ñëwaat des fois restaurant yi xam nga gis nga heure yu mhm. nga nekkaat fa ba guddi. léegi nag ci loolu amee li tax tëjeeguñu dañu ne dafa am ay points yu ñu xayma ñu ne il faut ñu teg en place une mise en place euh, la ñu def la mise en place d'un mhm. plan global pour la sécurisation du campus parce que li li xew kenn si ñun mënoo jël engagement ne suba suñu tijjee loolu du xewaat. que ci yéen la war a nekk. maa ngi ci ñun ñëpp la moo tax maa ngi ñëw parce que ñun ñoo yor le COUD si am nañ ci wàll. Mhm. léegi bu loolu amee ñoom ñoom étudiants yi ñoom am na ñu wax si ñoom ne ñi def li ñu ne li ñu defee nee nañu ñoom duñu ay étudiants. Mhm. le COUD ne ñun on va proposer un plan de sécurisation de campus li mel ni tey la digitalisation des accès ñu xool ñu ne tey université ku ñëw dugg pour nga compte da nga ne nekkatoo étudiant. pendant des années nga resté université. c'est vrai ñu ne dañuy mettre la digitalisation tey des accès ñu des restaurants restaurant encore da nga gis ña nekkul ay étudiants dem di fa lekkee. Mhm. ña nekk ay privé tey c'est un tout. loolu yëpp nag lañ bëgg a régler. mais le mal bi nga may wax nii il est profond te ça pas de temps aussi jël li prétexte rek euh, pour ne da ngeen koy régler benn yoon. non non euh, ça ne date pas d'aujourd'hui mais du lépp mais xam nga loo gis dafa am lu ko waral te comme lii xew na. lii ñun dañ ko def proposition d' accord ci ak étudiants yi étudiants yi ñoom seen bopp. Mhm. bu ñu leen waxee ne li xew ñoom dañu taxaw ne ñoom du ñoom. ñu bëri mooy ñu yore amicale yi. Mhm. ñeen ñoom euh, jàpp nañ ne c' est des personnes ñu jóge si ñoom ñoo ko def ñu ne ñun aussi war nañu xool yan anam la ñu a tijjee campus bi ba suba ku nekkatul étudiant doo fa mën a amati accès ba suba képp koo xamante bokkatoo fa nga nekkoon étudiant ba nga sa nga

foofu moo tëj pour ñu defaraat ko ak yeneen ak yeneen mais le campus pédagogique mosul arrêté on avait mis en place benn système bu ñu naan le système bi mais c'est ce ngi bëgg yàgg aussi ça fait cinq mois que vous avez euh, cinq mois yooyu noonu maa ngi ñëw ci cinq mois yooyu ku ne gis na ne avant événement yi di xew université ni université meloon. Mhm. te ba université yi lu leen lu ñuy envier aux autres universités européennes. te université defaroon nañ ko lépp rafetoon directeur mënul tëb rek tey nga ne tey da ñëw jëndaat ay bis da ngay defar lépp loo gis dafa am ay appel d'offres dafa am des procédures administratives mhm. loolu yëpp tey foog nga rek les travailleurs ni ñu amee mu am si ñun wàllu kudd ay sénégalais lambda yi nag ay agent ñu taal seen oto tey ñu taxaw itam liggéeyatuñu en tant que réglé wuñu loolu